asalaamaaleykum mbokk yi asalaamaaleykum asalaamaaleykum ah naan day foog ngeen àtt maag ñii de foog ngeen àtt maag ñii ndax démb aw yi da jaar bi aw bi ñëwee ni ma ruy bi ma ne ko ruy bi day ñeenti mbuus fi des waaye nag xanaa dama lay jox benn bàyyi ses pour ñaareel mun ma lu wax may loolu naa day raxas lépp daal jël lépp yóbbu ni ma benn ñaareel du fekk ruy lépp laay yóbbu ma fi bàyyi ab ñaareel ruy. bët set ab ñaareel ñëw ni ma ruy bi laa bëggoon ma ne ko ruy aawa yi mu gedd ni ma rek lu tax ma koy tuddee ruy aawa yi ndax aawa yi rek moomuñu ko mu jaaxle keneen ñëw ni ma ma expliqué ko mu ne ma teen koo tuddee bokk ruy jeeg ji ndax boo ko tuddee ruy jeeg ji kenn du mer man ko dégg moo ne ko tuddee ruy jeeg ji waaye jànk si jànk bi nu ñuy def ñi amagul borom kër jànk ju ndaw ji mbaa duñu mer lii de mooy coow li man nak ma yaakaar ko war a bàyyi ndax li tax ma ko turu ruyu aawa yi mooy aawa yi ñoo yëglu ñoom ñoo ne bëgguñu rakk ndax man du wax wujj rakk laay wax ndax nah, wuju da dis lo xam bokay wax say tuñ du daje man dama nan ruyu aawa yi ndax aawa yi ñoo ne bëgguñu rakk ba ñu wutal leen ab ruy buy bu seen borom kër dañ nan mom sa jëkër ah, ya ya nah, nah, ya ah moy ruyu takk sa tanku lal bi wodo du mo lay dimbali nga am ginnaw am deun loolu ruy bi fess del nag ab jéeg day bi di ñu njëriñ ruy waye nak, di ngeen wara xam muy ruy bi rek ruy bi donc bi kot waaw ah, rek mo ñu ko ak jeeg jeeg déedéet ñepp ko mom ruy bi ndax ruy bi ngeen di gis ki ngeen di gis ni muy ruy bi kii lii mooy ruy amul fenn fii ngeen ko mën a amee muy ménage bu doy waar sportif yi daf leen dimbali ndax day yokk masse musculaire boo bëggee am poids am musculation am yaram da nga koy jël sportif yi donc mën nañ ko jël dafay renforcer système immunitaire dafa dafay dimbali si xeex jàngoro jàngoro du la mën a faagaagal day dëgëral say yax day dimbali ki manki calcium ak mo fili da koy dimbali ba loolu day boy nampal di ko jël say yok day yok sa mew ki say amagul dom di ko da fay yok fertilité da yombal am dom bo lekkee da ngay gaaw digérer ndax yañ si boolee tax kon lolou moy ruy bi kon nak ruy bi ah jigen rek moomuñu ko def ruy bi day yokkaatanu góor te jigen ji sëy du yëg bànneex daf koy dimbali kon lii dafa bari njariñ bari qualité lii mooy ruy bi kon nag ma leen di wax nag ah ruy aawe la de waaye aawe rek moomuñu ko maa ngi xaar nag li ngeen di li ngeen di xalaat si commentaire yi leen déglu jaajëf